yaa asiru mahal abraari hiina asiru wa sannal xidaa anni honaaka asiru masiri mahal axyaari lillahi bi nabi wa maa lii li xayrillahi awdu masiru yasiru bi yal jasbu lasi xaadani ilaa karimin alayhima arumu yasiru sukuuri bi aqlaami wa qalbi wa jussati liman kaada lii bil joodi wa huwa sakuru nusuuri wa ta'yiidi wa xifsi ladal ilaa min alwaasihi alwahaabi fa huwa nasuuru amiiri ladaa sayri wa muksi wasiilati xadiman lahu wa huwa alxadima yamirum ujoori alal wahaabi jàlla takarruman ala xidmati almuxtaari wa huwa ajirum nusuuri ya kawni habdasil arsi waxdahu xadiman li xayri xalqi wa huwa nasirum yujiruni yalkaafi bihi min asal ida wa min kulli suuin wa huwa jàlla mujirum masiiri ya kawni abdahu xaadima nabi wa amrul baraaya lil ilahi yasirum shuhuuri wa ayaami xadan li sawaahidum bi kawni ya abdallahi wa huwa shahirum ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نهمة ستور بزوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أمانها بصور قصوري قلد والأحل حني تفرخت لمده الذي عنه المديه قصير خرور ولا خر النصارى بكيده وثنوا السنون والسنون خرور لرب التفات إلى لهم تائبا له من الذنب والآفات هو غفور lahu tubtu min xaybi iltifaati li xayrihim wa min nii lahu xaadun alaya damirum lahu tubtu saabayhin wa arjo ridaahum wa min nii lahu sukrun yaduumu kasirum fa jihtu bi bisrin minhu abqii sukurahu alayhi safahan walmukuusu huborum wa fi lxalbi min ridwanihi ma uktinnuhu daninan bihi inna sudoora quborum li mawlaaya xamdi raadiyan anhu shaakiran ala sirri sirri walxabiru xabirum raditu bihi rabban yusaxiru maa yasa liman shaa bi taysiri wa huwa xadirum fa akrim bihi rabban nafaaxan yalida wa saaxal munaali waljanaabu xaqirum xaniitu bihi rabban waliyan yaquulu lii maraami wa inni shaakirun wa faqirum umari lahu fawaltu walqalbu tayibun xariban lada alahdaai wa huwa bashirum rafiqi kitaabullahi walmustafa nabi wa ashaabuhu fi lbahri hiina adurum wa xaatibuhu bilmadhi wa huwa bi taybatin وإني له جار هناك يسور أخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه السرور وخاطبته في البحر إذ ديري انتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تابت لي النفس هاونا وأنت بمده كالصلاة جدير فصل خالقي روض الحلال محا بما أهوب به للبر أنت نسير fasal xaalixi tahjila aw bi bi mul yatim fasaaka ala al mawla al karimi yasirum alayka salaatun minhu jalla musalliman mahal ali wal asaabi nihima budurum wa minhu salaatun mahsalaamin ilayka yaa munaakal kali yaa man nadaahu buhurum axisni axisni yaa safihi wasilati hona wa xadan yowma alsamaau tamurum wa xudni min alfujjaari walbahri xaaliman ila albarri wal abraari anta bashirum fa bassir sawi lislaami bi aajilan wa kun muniiran bi al islaama anta muniirum salaatun wa taslimun min allahi sarmadan ala xayri man tushka ilayhi umurum ala xayri xalqillahi turan muhammadin safihi lasi kulli yaqi wa yuniiru maa al aali wal asaabi uslil xidaamahan sawi sabbi anni kulla man sayajurum ala xillihi siddiqi ridwaanu rabbihim kama xaarana fi lxaarihiina yasirum ala safihi lfaaruqi min rabbihi ridan kabirun kama qad sababahu wasirun wa minhu lidi nuurayni abqi ridaahum kama faasa bin nuurayni wa huwa saburum ala walidi sibtayni asnaaridan kama abada alhidaa bi sayfi wa huwa shahirum ala jumlati al ashaabi ridwanu rabbihim kama jahadu man jaara bi sa kafarum bihim artaji min maliki nasrahu ala sawi sawi sirki bi taslisi hiina tajoorum yasunnuunani waqta ixtiraabi ladayhim asiran lahum wal kullu samma yahurum fayaara usaara lisayatini walhawa wa inni li rabbil xarsi jalla asirum asiru ila sil barri wal bahri xaabiran wa lastu ila alfujjaari awdu asirum masiri ila alwahaabi jalla jalaaluhu wa ma li ila xayri alkarimi masirum tamassaktu bilxabli almatini murattilan wa bilxurwati alwusfa lati hiya nuurum bihi surtu bihi sirtu min rabbi li rabbi muwaxidan wa xawli nasaara walbuhuuru tamuurum huwa alkansu walkibriitu wassaadu li huna bihi tantafi naarun xadan wa suboorum kitaabun kariimun min kariimin mukarimin li abdin kariimin lil xadiimi yamirum kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lil kafuuri yadirum alaa man bihi xad jaa ana minhu mumsiran salaatun taxini soo a xaysu asiru inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabii yaa ayyuha allazina aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima labayka rabbi wa saxdayka wal xayru kulluhu bi yaddayka xabduka wa qadiimu abdika bayna yaddayka xaayilan fiika yaa rabbal xaalamiin wa fi ahabil xalqi ilayka amartana bi an nusalliya ala nabiyina yaaman bihi tuxdil walaam naroomu minka an nusalliya ala kama amartana fasid bina hola <clears throat> naroomu minka bi rasulillahi alayhi xayru salawatillahi an taktuba salata wa taslima ana lahu wa hablana xuluma للمستغاب تب صلوات عنام مع سلام ربي حيث عنام للمنتقى أوصل سلامي المعين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع الصلوات الساكية بالغة إلى النبي نامية قبل نبيك بس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من قدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مع تسليم سمام إلى النبي ذا الأراضي والسمام للمنتهى الذي تفاخر مضر bii ala naasi ala naasi mahan mun su xadar aw sir salaatan bi salaamin laa yarin lahoo yaquudaani jamiha maa yarum aati nabiyal muntaha al wasila yowma alqiyaamati maha alfadila karrim rasulallahi sa sariha bima hawa darajata rafiha taslimu man huwa lana almasmuudu ala allasi maqaamuhu almahmuudu abdi rasulillahi sallallahu alayhi fi aali wa man walaahum yaa muhtiyan laa yuxlifu alwaxda jamii maa xad waxatahu safian fi ljumuh salaatu man laa yuxlifu lmiaada ala allazi qad xaadali ishaada lilmuntaxa awsil awsil bil intihaayi jumlata ma qad kaana sastihaayi lilmujtaba xayril baraaya ahmada awsil jamiha xidami waltaxmada wasil busaaraati lkarimi samadi ila nabiyi lmuntaxa muhammadi naafihu yaa samadu yaa sakuuru yaa man lahu min intaha sukuuru ala nabiyi lmuntaxa rasuli salli wa salliman wajud bi suuli limujtaba allasi lahu xilaami awsir salaataka maha salaami yassir bijaa il muntaqa lil muntaqa fiya manafiha dawaaman tuntaqa uktub lahu sala alayhi lbaaxi bisababi maa xaaba xan subbaaxi lil mustafa tub yaa karim wa abada busaaratan min xalami haysu bada naafihu wajjih li nabiyi bi nabi bi xaayiban an aqrabin wa ajnabi bijaayihi awsir lahu haysu yakun bisababi maa laysa yadrihi makin yallaahu ya rahmaanu ya rahimu ya man bi xaribin wa mujibin summiya ati nabiyaka rasulaka almaram fi alihi wa sahbihi bilan siram yallaahu ya rahmaanu ya rahimu ya xaribu ya mujibu ya mukrim ya utub salaamayka bilan tihaim للمصطفى سل الحسن واللهائم أحد يا نافي صل عني مسلما على النبي بالمنين يا رب يرضى عن صحاب المنتقام سوي الرداه والوداد والتقام yaa rabbi yarda an sihaabil mujtaba wa kulli man xarrabtahu bil ittibaam abli lazi fataha duna latti li baaba shukrin mastaha fi xatim uktub busaaratin tasiidu raxadaam lil mustafa fi yowmina saawa xadaam awsi salaatan la tuhaaki salawaat li muntaxaaka yaa mujiba daxawaat li muntaxaa lasi bihi lakkantahaam sayir yaqut bi xidami ma yushtahaam lil mustafa xayril baraaya ahmadaam xallis salaatan wa salaaman sarmadaam dubal xanaa awal asa min qabli an yaxsir lahu yaa man lahu qalbit maan yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana ahmat hibbana naji jamiha man ahabbuni xada min alxasaabi wal tuddim lii raqada amina waxsin bi nabi kulliyati min al asa wal tataqabal niyati ila nabi filaali wasahaba xorxidimi wali yahab sahaba mun na xalaa xayri wara bi kulli ma yasurruhu wasalliyan wasallima naafi musalli wal tusallim doonaat ala nabiyika busaarati mahat wa alihi wa sahbihi wa qut lahum xayral muna bi masidin jud lahum ahadu salli wal tusallim sarmada ala xalilika alhabibi ahmada salaatu man laysa yuwajjihu alkabat li abadan xala sururi man abad lilmuntaha xayra salaatin wa salaam min maliki rumtu kama mahal malam lilmujtaba rumtu salaamayil karim lahu bisbihi wa bisrahu arum wajih bila nihayatin ya baaxi ya tar ara li sabi wa ittibaaxi ila nabiyil mujtaba almustafahim xayra salaamay alkarimi al anfahim ala nabiyi almustafa almubassarim xayru salaamay almudimi albusharim lilmuntaha xalli salaama laahim an afdali salaati yaa ilaahim yaa xayu yaa xayuumu yaa rabal waraam yaa man waxabtali ridaa wasu waraam abdi rasulillahi yaa sal xidami abqa suróorin min jamihi xidami wajih li afdali lwara wajih li afdali lwara li afdali lwara jumla tamaam lahoo nawaytu min fiaalin tox tamaam salaamu sil arsil asimi samadi على النبي صل على محمد للمنتقى قد ما يسر سرمدا يا خير مهت لا يريني كمدا لمجتبى خلي صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مد سلاميك بجاء المصطفى للمصطفى يا من هدى يا من هدى واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهام في اسمه القرب منا لها استهام إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يزال بسرهم بالمن تسليم ذي العرش الأسيم أبدا xala nabi xaytu stafa aw qad balaam salaamu man xabatuhu li rajabim min almuharami ala almuntajabim liman loo xatti ila dil hijja min rajabin taslimu moxtil xujja yen xaadu lil muxtaari kulla aamim min ne insa basitul inhamim madi wa taslimi an salaati li wàcci man bihi nafa xulaati aqulu xaabidan li moxsini suwar bi xidmatin liman lahu xaada suwar badaxtu bismillahi warrahmani wa birrahimi maliki al asmani subhanahu rabban li wajhihi alkarim sarahtu fi alxidmati wa rida arum min alilahi rumtu xayra salawat wa xayra taslimin limahi lhafawat abri salatan wa salaaman li nabi wala li wa sahbi sawi tajannubi li wajhika alkarimi til muqaddamat awsil li afdal wara muhassamat li wajhika alkarimi xallidi lbusar bi xidmati tihi li afdali lbushar ajib duhaiya bi haqil asamin wa xidami skur wa umuri hasimin abli nabi abli nabi ilahi minka nasmin يا عاصما من جالبات الكسم اكتب بحق وجهك الكريم بازدياد البسر والتكريم لك توجهت بلا إسراك سدنا يهيما ساحدا إدراكيم رق السكائي والتحسن فهميم وعقل يحسن من خطن ووهميم أدني للجنات بالحلاليم بلا ضلال وبلا إضلال مد لي الفوز وخذ للبركات وسكنت تسكر معا والحركات إجا الكتابة للمختارين أحب يا من هنده مختارين nawir kitaabati bi jaahil muntaxaam baaba xuloomin wa falaahin wa tuqaam ilayka laa li xayri kan siraafiim min faydika almurwi maha ixtiraafiim laka xaqaayidi maha al aqwaaliim wa jumlatul afaali wal axwaaliim raditu anka farda anni karamaam li wajhika alkarimi wal tukarrimaam hajabtani an ilhidaa ijaabaam yaa man maha sumhata wal ihjaabaam yatur min kulliyati al ixlaasuum wan xaada lil amaanu wal xalaasuum muhammadun sala alayhi sulxidam maa salaamihi lahu min alqidam furqaanuhu farraqa bayni abada قبل وبين كل من لم يعبدا سكت ربي بنسر والنظام مع النبي ولي به قاد العظام نفع نبي الله أرزينة مضر لي بان عند أهل بدو وحضر قادري المختار ما لي قادا من ربه بربه فانقادا أباتي لمن محل فتونا وقاد لي بالمنتقى المتونا رسولنا أحمد قد أراحا بربه كلي فاستراحا لانقاد من قد به ليلحكم لانقاد من قد به ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون السيد الورى مثل الورى وقد هدى ونورا سلام رب العرش والصلاة على الهلاد به القراة فسد قلامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسد يستري الله بخدمة المكين يستري الله بخدمة المكين كل عسل رفضه راضه كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة الصلاة ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي الملام ينتظر ربي مع الماحي السنين إباتا ثوابها محل أنين غفرت لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما تاب علي توبة قد غسلت ربي عيوبي بالنبي فانغسلت شكطوا على النبي محدثا مذ قاد لي ما قاد لي فحدثا هذا الباقي بالجاه الراقي ما قادني للشكر بالأوراق دعتني النعم للشكور يمدح عبد للورى الشكور جميل المدح لا يزال الهلال بشرى سرا وجهرا للنبي البشرى إلى النبي وجهت ما قد أغلقا باب جهنم وعنا انغلقا قدت إلى المختار ما قد فتحا باب الجنان وإلينا انفتحا فرحت خير الخلق بالقرآن هو الهدى ومورد الظمآن حجب ربنا بالجاه المصطفى بيني وبين كل ما لا يصطفى قلب الأعيان مدح المجتبان وليقود برضاك ما يجتبان زب الإله بالنبي الضران إلى سواي ما, ما, ما وده ذو التقى طيب الإله بالنبي الضران إلى سواي قائدا للبران طابت حياتي بالنبي المنتقى وانقاد لي ما وده ذو التلقان naweytu sukra maliki ala nabi rahmatik kulli aqrabin wa ajnabi qadil ilahu ma bihi dahar kawni abdo walxadima washtahar raditu amman jaadali bi kawni abdan law xadima xayril kawni waajahani alquranu bilxalawa wa qaadali xayril wara tilawa xayisu xayril xalq li anis baada kitaabi man huwa al anis jaadali alwahaabu bittanaa ناجي وهو تعالى خير من يناجي حويت في القرآن سرا وجبا أن لا يزال أبدا محتجبا أتوا الكتاب راضيا عن منزلك عطي عني ماحيا تزلزلين صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد جاد لي الجامع بالمنافع مستغيا به عن المدافع مع عيوبي من حماني عن نفاق بالمنتقى الذي جميع الخلق فاق أسير من قبل مني الفرض علي به دفعت القرض طاب فؤادي بتوجه الجزاء ربي لي فيما كتبت الرجزان فوجعل من الجميل تحلية الباقي بلا خمول ملكنا المغني عن الملوك وبالماحي عن السلوك قدمني الله على الخدام بالمنتقى المثبت الأقدام وتماهب بغير كسب بل إله وإله حسبي مضي الباقي الجميل مددا بمصطفى الذي لساني استددا فتعالى الحمد والشكور وهو الحميد وهو الشكور له عبادتي له عاداتي ولي قاد منية السادات هو لي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مع توجه اللعين ليمن لغي نحبي ساقه كل زمن نكد ربنا على الكتاب نكد ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باق لنا قد طيب الأوطان لو شكرنا على الأخيار وما نختار بلا أغيار شكرنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأعطى بل خلدا هزق ثمد إلى سوانا ما سأنا باق له هوانا طاب حياتي بلا شيطان وليس الممر كالأوطان إلى شعاع ينتحي كل اللعين يا ود ربي المكرم المعين لا يغير الفساد والضرر كما انتحى لي الصلاح والدرر إلى شعاع ينتحي العدوان والسوء والغرور والهوان لربه الحمد مع الثناء بلا معاداة ولا عناء أدى شاتنا لغير الله قد انتحالي حبذا الإله جادنا بعصمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء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 كل الحمد والشكور للمالك الرحمن والشكور ذاك الرحيم بالنبي الرجيم وآله وصحبه النجوم بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول إلى النبي وجهت قبل فندري مع الكفاني العدا كالكدر للمنتقى وجهت في السفينة للمنتقى وجهت في الدكار لكن به قد كبكب المكار للمتبان توجهت في السفينة قبل سنة يخلدك في المدينة هديتي استفد لدى كناكري للمصطفى الماحي بلا مناكر ملكني المالك عند الداوم ما قد كفاني عدا تساوم نفعني الناس النافع في لي برول يا به يغبطني كل ور إلى النبي وجهت عند بأفر قالوا إما به أنار محفل للمنتقى وجهت في كبل بسا ما كفاني عدوا حبسا شق على الشيطان عند قلوى خير خدي من كفاني البلوان يسلق صرمدا لغير الله ضرا ولا إله إلا الله طواف كل من علي أنكران عند الإله والنبي لن يشكرا طواف كل من علي أنكرا عند الإله والنبي لن يشكرا إلى سواي كل من لم يهوني ولسوى الله العلي المكون نفى لغيري كل من تكبرا لقن حباني بمزايا الكبرى إلى سواي ولغير المنتقى من لا يحبني ويلقى ما اتقى غير ربي ولغير المنتجب يساق من زهد في واحتجم هذا تعد الإله والنبي ولا يزال مبغدي بمذنب جاديا قضى وبيعي ربحا ولسواي كل كلب نبحا يندم في الدين من عاداني بعد باق فضله هداني من غير بش ومن الشيطان عاذني من جاد بالأوطان القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وشلي عندك وعند الملأ الأعلى بأني عفوت عن النصارى والمنتصرين وإني عبد وخليل وحبيب لك عبد وخليل وحبيب لك تفتني الجميع يا من لا تاخذه سنة ولا نوم يا سميع وبأني خديم وخليل وحبيب له صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك من يوم السبت الذي أخرجوني فيه من جلف min jolof ila yawmi adxulu ljannata allati wa'ida almuttaquuna yaa man taqabbala minni maa katabtuhu min zaalika alyawmi ila yawmi irtixaali min addunya ahabba ilayka min gayri alqur'aani walxadiisi yaa amiin yaa rabbal aalamiin a'uudu billahi mina shaytaani rajiim <clears throat> أعذي المانع من كل اللعين بقضي فقلت حبذا المعين عذت يدهر عبادة لمن له البرايا قوى الفعال والزمن وجهل الباقي الكريم الأكرم فلا أزال أبدا مكرما ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بالله في الدين عزت سرمدا فقد أعاذني به بأحمدا الله جل أحد والله الصمد الذي هو الإله لم يكن والدا وليس ولدا وكان لما أطاب الخلدا لا خطابي راضيا عنه وعن وخدمتي قد لازمت حيز عن قبل رسول الله كل ما اشتهى هامه إليك السير ينتهى من الليل قد عزت كليا يا باقيا جعلت كسرا كليا نبيت بقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن هلكت كل من قلاني في البشر وبالشياطين ذهبت بيذا بشر لقيت أعداء خلوني ترا لقيت أعداء قلوني ترا فأبدا لست ألاقي الشر شقاء من لم يهوني قد كتبا في لوحك اللي يفيض الكتبا الشقاء من لم يهوني قد كتبا في لوحك اللي يفيض الكتبا ينقاد للنيران من لم يهوني مخاذا فيهن لا تلوني ها من لم يهوني بين الضريع وبين الزقوم يكبكب الصريع أنين كل من قلاني سرمدا أين الصاح قد يزيد كما أحدا جئت كي أكون من عبادك منسلقا مني ومن أعدائك جئت كي أكون من عبادك منسلقا مني ومن أعدائك يا بر كن مصليا على النبي والآل وصحبه وهب لي مطلبي وكأن قلبي ناجيا من شكي وكل ما يجرني للضنك سبحان ربك رب العزة عما عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا خير